عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد المصطفى الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها الأحبة في الله في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفقلنا نجلوخا إيونا تفنون na jeetaay nun ndef leng na alxuraan fasunna hade koy dars ne i ngarta fa nuun te refu darsu eetaan nu ke na xare nu ke na layel alxadiis annabawi alsharif yaam ka lay o buga nga waxtaan fa roog jangi alquraan o buga waxtaan fa yonentane jangi ke na layel sunna te ref xadiis waxtaan fu yàlla xam-xam xee jàngi ki na layel al kutub al musannafa fi l ulum atera ke taalife nayo no xam-xam mayu kenn andoona de ngiiɗ yo a kiiɗ nu laman ne i ngotitna yonen tane te ref xam-xam o i mbuga atana tun rek darsi leŋ na andoona i ndeef kadi fa nun te dars na dabna na ilmul xadiis atan nun deera leg naa layel arbauna nawawiya te ref deera jegu solo oxe refna imam nawawi a genorin te seq hadis ñaa ñeen fu hadis dik no hadis ka andoona refe falay no leng o celuxe andoona te moƴnu ke roog a binna te ref rasulullahi nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam e kon te taxi atno ngir rek nafarotee ke andoona te refu laman yonentane sallallahu alayhi wa sallam wa jama wa jumiat laka aw jamanaha laka fi hada almilafi aljamil maa baad almuathirat almushawiqa raja an yamuna allahu alayka bixifdiha wa tabligiha fatakunu miman istajaba li amri rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi balligu anni walaw aaya kibaat na tax i ato darsi nene te refu yonentane ka sebkato xu refna leyne a neew neew neew neew fato fadananam no wiin we fato o nannanam wiin we doonte hadis leng no hadis ke atma wala aaya leng na alquran kene taxu koy i ato ke andona te refu a ceemal ne ngeɗa yaaloxe te in a keena paax o fogole hadis ne imam nawawi a wektitna kene andona te refu deran ne hadis maakun hadis na andona xane jege a paɗaxa leŋ na lislaam ala boo fi an refeele reke xano soxla hadis nene a luqong te ref kena layel yéene yéene ref tig maak ka andona ye o julli a jega yéene o nu aj a jega yéene o retnu koor a jega yeene o na sut azaka sax a jega yeene o ret simit paax a jega yeene o nu julli kaa koor kaa njàpp farata fu ku ga'oona o kiina fi'an to a bug ta ngidim roog a jega yeene ken tax oxene leyel omar ibnu alxataab alxalifatu althani linnabii sal sallam afdali hadihi al umma bada abi bakrin wa rasulillahi sal allah ote atu hadisnen to ref omar ibnul khatab o anle a refɗanga a ɗat cheytane yamo dega xola reɗna fo ten fo sa ndigil ola reɗna fo ten a tax ɗay a refɗanga a ɗat cheytane ka ɗapa ɗata langna fo xana leyel omar ibnul khatab radiallahu anhu hadis nene o teno te nantun na yonentane oxe xottunono tenit o lengoox kene te layel xabarul ahad i gaƴote qel talay gottayno amir muminin abi hafsin an amiri lmuminin abi hafsin عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها aw imraatin yankixuha fa hijratuhu ila ma haajara ilay hadis ne ne e, imam ɗik de netlino ta ref abu abdallah muhammad ibnu ismail ta ref al imamu lbuxaari foxna layel abul xusayn muslim ibnu xajjaaj ta layel imam muslim ta layo umar ibnu alxataab radiallahu anhu anan ɗayna yonentane sala sallam ta dam api ake paɗa geenora fop kana ci an solo te ref wala solo nana jeg ka ka tolor ka fa solo na yene na jeg na kono xu fina pi api ala ka jofno xonata dongo jegota ta laye faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulih oxu andona roog som som somote tax o gadayit makka kaa xot mene gàddaay mais kuu fi aa rek yéene naa te jeg tee solo dégg nga kuu fi aa yéene naa te solo te ref gàddaay te ref julli te ref koor te ref nit azaka te ref ku na way na ref na padax ken tax te a cooxit misaal nu ke ref na gàddaay yaam jamono nag na yonente de kaa inoreeg yo mais de ref na makka a ngeri da madina a inoora yo yit makka a ndet mene layel kon kangre fo paɗahala andona danaka cohtuji sufa on ta laye huufi una ngir roog xano jegta a tafid roog a tafid no xa gaddayna ngir o damit diine roog ngir o sodta yonentane waaye ke poxu andona ka o gaddaay to dara taxengo inoor makka ret madina a refa ngee xat bugoona o jeg ta ref xalal kaag na day kaag na dongo jeg kaata fatam o malange fato jegin na xadna yaamoña kanka e ñakkaay aboubu ñakka ceena laa kanna soɓkamta nda yu andona e gorgorlo hay bo anle rogo taho yeene rafaran a tafido jegka to xano jeg ke andona ten ref ngidmino yaalo xe oxu andona ye ka o gada yit inoor ma karet madina wala saaxuru na wayna ref na hadna ne o ƴufit diine of ret yoon fo wa ƴufit na yoona diine den ngir diine den dabnu sax lakas ra giro tewo xa ando naye ka yoon fa den to o bugin o tak foogle o taka ngeran hadna of dara ñaaƴ keta o tewo xa donga taxo yoon fu groupe ra fata leer ge wodey o tewo na o widanu gadayi rang na kang na te o jeg ka nu gadayi nang na kon kene i and no paaxa paaxa paaxa paax gadaay koy saax ru refoona o fogole woy rota ñoow ñoow l'islam woy rota ñoow gimof woy rota o faɗo ko yaalof wayruta janndine of an ke warona an giro faɗorno yaalo hene paɗa heke andona xu refna warowno geenor saxrang na waye ta ret no saxlakas ra andona kag na jegeema ngetil nang na jegeema nda koy a refanga saxa ka andona fop julitu la hijrata bada alfathi re makka a wegtena baƴut kon gadayi refate farata no kiinoxe ta fi atan dégg nga ay noonu garma diina waaye yuuna def na saaxla kasara lislaama xitlee na weneen def na tawhid fasu na xitlee na ba ta anle wayatee ñëw dara dara dara na tawhidum kon rafarang na gaddaya na warlu na jamono yonentane ka ref ka gaddaya na andoona ka wala bal ngiro xene andoona te jegu ɗom rang na daluna kon hadis ne ref hadis maak na andoona a teera ke moƴna mboɗona alquna na diine te ref sahih fa sahih muslim de at yo hadis ne te ref hadis kon yu andoona xane geenoo xaami jul ale allahu akbar wiin we nal fo ngar adee taxama um jul a fa mosu ngir wiin we layoon de tara waagay juli juli ne andoona te yonente ne ek mbitta layoon de taroo saɗaru roog raa na juli naa jega ta tig ken taxu yàlla subhanahu wa taala in alqur'ane wa ma umiru illa li yabudu llaha mukhlisina lahu ddin fatwe dey simano a refange a mbaɗoxo roog to a selalal no roog soma tax te mbaɗoxa te mbaɗoxo roog to roog somat waral a paɗaxa na kon kene fat i ngorgorlooxote o yanga sadaxta fat rooga tax o yanga ñoowna njabootof même ke andoona te ref dépense ne cooxta foration ole cooxta jofnooxita roog yaam kan ka waro fi'in kon guir tiyare fañore fapi rek a fodda waaye a ref kaana rim ka feet fat tax ndax innamal amalu binniyat dégg a jegay hadis la kas na lay naye la amala illa bi niya dégg nga a pi a leng refe pi ala rooga ka a refa nga fa selu ɗapeeran kon faabudillah mukhlisan lahu din lillahi dinul xaalis kon yu faɗoxa roog wo yonentane faɗoxeen to paɗaxala o som a tax yama paɗaxala rooga taxna kag refa paɗaxala ando naye a mucay no ku ne yaqa paɗax o fogole xane yu i ndoka na l'islam layo ashhadu an la wa ashhadu anna muhammad rasulullah fata soɓɗogo taxu waye bugo leyele julu julit ke fogo kam na ba tax fat i ngorgorloox bo ndiko rik in ku i mbi'ate rooga tax yaam kat ga'i a jegay fat wa andona ye xuugana nanna zahir den ka o fog ka ajana ta mbaro ito ta ref oxa waag na jang alquran lool a xaay te a tajwidan bota sax a sag nange xa koon fa samo fo lakas oxa andona ye na ñowana xadna a jeg ta nan wo bugeena xalal to fi an at roog a tabaxaate jaka fu juma o lakasoxe a ret na xare na o qolterangala añefreel ca afadreel caasi baa warel nu njambaarum roog yonentan lay weene yeeni jegaytee dadu kuwa yeene yaqan na yaam jege maanaam oxe jangigna alqur'ana ne foxe ñoxereena baaxonta foxe cogreena xalala ne a jegaytee dadu kuwa andona daaye gonoota mbidegta yonenta ne a raang na yawmal qiyam yuna garna wang na eet keeloo o ndek li ndek li telo fidèle dekli fidelo feet wamna eet kelo dekli to fidel yam ka roga xooy ka den xooyo cajang alxuraan lay ne a ah, wo ɗoy ciɗɗak ñuxuro felu ta iyo ta lay ne xa fiyo taye ta kam jangta alxuraan jangan nges fukkiran jangni tan ta laye <laughs> an tax ɗum jangane ta wosomo tax ɗum jangan roga lay ne layro ndigil ka o jang ɗum ngir win layo nde taro felu ñuxur asib malaka taju fo mala juróom-ñaar fukk uh, nu malaaka e tatiroo xak na ɓek no fiɗel a ɗook no ɓek no fiɗel nene te fika yit fo yaal xala loxaa ala fi'angaan a fi nene fa jambarana yaam oxu refna den gonoota waa ɗeg kon yeene um te ref gon reede roog kene tax innama al amalu binniyat ku kiinoxe fi'a fat ta soɓle yeene na ɗaap na pi'ala yeene raan fana andoona roog somo jofnooxe ta refe lakas yam kat ka i jegnano piɗɗin rek te ref ka i jofnoxonata ka i yenenayota wa innama li kulli mri'in ma nawa yanga i ga'a kiin xare te gara juli a den fo lakas te juli wa salaatu hada wa salaatu dhalika kama bayna alsamai wal ard manam julinox ne fo xaana a nguutatiro a ngoɗatir to ne lang a goɗatirna fa asamaan yaam oxe garna a juli ngir roog tax o xang na jul um ka ka ka a ŋaayi o xe ando naye ka juli koy ngir wiin we o xaangna day juli um ŋaay ke kono an le ɗik we a jul ayo sutooxo o longoxe julit fangoolu yaan o longoxe ref yee farfanaan a ñaaƴaa yaam xare yaam ke ando naye te ref julina roog taxe kon wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu ddin innama amarana allahu subhanahu wa taala bil ixlaas li anna al ibada la tuqbalu illa bi chartayni alchartu al awal al ixlaasu lillahi wa shartu thani al li rasulillahi waaw apan axalu ga oona ngir rooga fa a jaɓin il faut te jeg ɗik refna te te ref o faɗoox ngir roog waaye o roy na paɗaxala sidna muhammad kon roog yaasam te cee in o selal no ku i a fo ku i mbi'a yaasam roog tax a ah, kon darsi nene te i njeeɗ fa nuun ngana yaaloxe te cee in ngato jaffalaka so pog nun abdoul karim to yeneg fa nun émission nun ndef leng na alquran fa sunna o pogo xar fena teknine a ref cheikh moustapha foo o um umna roog yasam roog a ref den den ɗik fop yiw fu den wala bogum laye den daruk aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi